waajal. ngeen di waajal. dem Sar Sar. Ah. ziare ji Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul. ñaata kilomètres ngeen cent kilomètres cent cinquante ci tali bi soixante quinze ci désert bi fa la ñu yàgg ca barab ba. sooy loolu noo yow. <laughs> sori rek. Ah. waaye nag. Ah. lu mu la jaral loolu lépp yow. man li ma jaral bari na. maanaam su ma toogoon di wax li ma jaral fii. du ma fi jugee daal. barki borom Tuuba ndax daal inna lazina ila sar saaraxa fi sudu siyaar in faroxu daay mo saar sëñ bi café gi dina doy foofu wala eh, macha allah café gi kay moom dana doy macha allah ah. sëñ daam waxee woon daari ah. mosan yëpp dinañ naan café incha allah nan ngeen koy waajalee yow waaw comme ni ko daam waxee rek ah. noonu rek ci séddale bi ci ñu siyaare ji café gi rek café gi rek café gi bu tawee nooy def moom ci café gi te lii mooy oto café gi. sécurité. waaw waaw sant rek. lu ngeen a waajal ci sécurité soxna si. waaw fas yéene sécurité soxna si rek ngir dem Sarsara ci jàmm ñëwaat ci jàmm. Mhm. bëgg a ànd ak moom ci jàmm rek. lépp nekk tawfeex Cheikhul Khadim. soxna si moom bëgguñu lenn loo xam ne si dana ko gàllankoor kenn bëgg ko waaye nawet la ñun loo tax ñu dafa saa yu nii takk suñu digg fas yéene ko aar looy xàllee yoon bi. waaw moom de xanaa Ida Sar Sara rek. Hmm. waaw yoon bi lan nga ci bëgg. maanaam suñu diggante ak soxna si bu soxna si wàccee di dem lan nga bëgg. dañuy daw wuti soxna si. Hmm. waaw lan ngeen di waajal. ci wàllu xàll yoon wi waaw xàll yoon wi rek ba nit ñi duñ engagé soxla si jëm si ci moom ci benn côté rek mhm. lan ngeen di digal ñi nga xamante ñoo ñëw di ziar si waaw ñi nga xam maanaam dañuy ñëw di di ziar si nañ ànd ak dal rek te xam maanaam lu baax yombul te lu baax képp ku ko bëgg war ngaa mën a am loo koy wane wute ci ñu koy wute nag ci ak dal ko koy amee waaw lan ngeen waajal Sarsara ci wàllum njàng njàng mi de li ñu fi waajal moo di jàng njàng alxuraan waaye jàng xasida jàng bi nga xëy noonu ko Seexuna Ahmadu Bamba xamoo bu njàng mu set wecc moo xëy du ànd ak lenn du jël fàkk ngërëma si Tuubaa Xaadimu Rasuul loolu daal mooy wetaay ok sikar si waaw Bécaye ñu ngi lay siyaare bu baax comme li nga wax comme li Baye Sang wax rek mhm. ñu ko waajal ci turu yàlla waajal ko ko ci bernde yi ak ñaan yàlla suñu borom daal la ma waxoon ci départ ba rek senegal Mauritanie yàlla def ci jàmm sëñ Tuubaa suñu jàmbaar yàlla na ko yàlla fayal ñu tawee ko di bis bi yow loo war a loo indi tey ren. fas yéene tudd yàlla ba ba tekk ko rek. comme ñun tudd yàlla wi lan nu sase moom. Hmm. fas yéene ne baax a baax a baax. ñiy déglu ak ñiy daanu moom loo leen di waajalal. ñiy déglu ak ñi daanu. waaw fas yéene kenn ku nekk bay sa bopp suuf. Hmm. ndax tudd yàlla moom du set incha allah. est-ce que jaajëf ko dundal baax a baax rek. jaajëf ci barke maam ci Ibrahima Fall. man. lan ngeen waajal Sarsara. waaw Sarsara moom waaw gis nga ni ko gars yi jëlee ku ne takk xam nga waaw bëgg a def rek alias Sarsara mhm. waaw mhm. bëgg mu yàgg te neex rek mhm. incha allah seen cadre lu amul fenn Cheikh Samb lan ngeen waajal Sarsara waaw Bekay Ndiaye noonu waajtaay mooy fas yéene dem rek di ñaan suñu borom tàgg ci yoonu jàmm ci barkam Seex Xaadim Soxna xam bam lii nag dañuy wax naan déwénate rek di ñaanal Seex Sidi Moxtaar yàlla ñoo ko ay leeram tax su barkeem waaye des fois dañu ñaanal suñu taxa yàlla yàlla yàggal fi wér kon daal ñu ngi ko di waaj a départ fas yéene fanaan sa saara bu ñu xëyee incha allah départ waat départ ñu ànd ak ñoom wéyal programme bi jërëjëf ay bëggaay ñaan lu ngeen waajal macha allah ñu ngi waaj dem ziyaara ci barab kàddu yi nga xam ne bàyyi ko soxna Maane si Mbàkke di sant bu baax di ko wàññi te ko rek ko yàlla dogale a ngi waaj pour ñëw bu baax a baax nan ngeen ko waajee rek ah waaj ni ko daa waajee rek mhm. maanaam waaj waaj waaj ñëw fi Sarsar rek dem fas yéene dem si jàmm. Mhm. tey ñaan del si jàmm. Mhm. demee nag pas-pas. est-ce que pasaale mboolem ku yéene mhm. ak ku ñëw. ñaanal Sénégal ñaanal adduna bi. ñaa bi ma ñaanal gi moom bi ma jullee fajar te jumaa ji ñaan Serigne Touba képp koo xam ne. jóg gi dem Sarsara. yàlla na nga départ si jàmm ak si jàmm. dajete ngërëmu Serigne ku fa yóbbu jàngoro yàlla na ko suñu borom faj ku fa yóbbu ñàkk yàlla na suñu borom yàlla na nga am ku fa yóbbu njub itam yàlla na nga jub xol itam yàlla na ko suñu tàppee ñu xam ne ñëpp suñu tubaab yi tax a jóg jërëjëf sëñ bi waaw man de boobu léegi yaa ànd ak ñun waaw waaw nan nga gisee mbir mi waaw maa ngi siyaare bu baax mhm. maa ngi tudd Alaaji Ndiaye Guèye Touba maag sëñ Ousmane mi dafa am lu nu bokk mhm. moom maamam mi ñu ko tuddee mhm. moo ñëwoon Sar Sara ba baaraamam des fa bàyyi ma ko ci man mi itam euh, sama baay Abdoulaye Guèye ca Cawaan mhm. Alaaji Moustapha Guèye ma bokkal baay bu ma ko wax mhm. te xam naa ni yàgg na mhm. waaw sama baay àndoon ak ki bokkam bokk na ca baay ma gànna euh, bokk na ca Mangone Farma bokk na ca musa Ndiir ak xëy na ñeneen ñu dajale woon seen addiye ñoom waa Tiwaawan yëpp yot ko ma Massamba Diop Sam mooy sunu bunt sëñ Touba mhm. mun leen dama leen di yóbbu ca sëñ ba ñu ànd ak moom ñëw ba sar saara mhm. loolee daaw laa ko bëggoon mhm. waaye yàlla dogal ren nga ñëw ren nag ma ñëw ngir roy si sama waajur ñëw siyaare sëñ Touba Touba nag laa dëkk waaye sar saara moom maa ngi ciy woowaale nag profito ci lii di woowaale samay bokk askan waaw askanu cawaan wépp uh-huh. maa ngi leen di woo day uh-huh. def clen day jaara géey mangoone ndax yu mel nii moom doy na ma ci que waaw yow nga ñëw ñëwaat ñëwaat ñëwaat lan nga gis bay tax ngay ñëw ñëw ñëwaat ñëwaat biir ñëw nag dama cee ñëw ñëw boo xam ne dama ñëwaalee njaboot sëriñ Omar Diop képp nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ëllëg tey moom la suñu maam tam àndaloon ñëw sa saara waaw yëg-yëg liñ ci am mooy waxtu wane bu ñëwee dañ ne dinañ yëg suñu bopp ak yokkute bu wér-wér waax yi na ma na nag jërëjëf yokk taalibe yokk ci koom yokk ci lépp. ok jërëjëf Yeah jàngin jëf euh, bokk yi nga xam ne yéen ñu ngi bàyyi xel ni ñu leen ko waxee woon sànq rek ci kër gi foofu Serigne Touba nekkoon ak mag ñi doon fi jàngale waaye doon fi tarbiya mel na bi fi bàyyi ko itam gis ngeen jaar nañ ci jàkk ji nga xam ne ñu ngi ko fay naal ko fi tabax macha allah gis ngeen taxawaay bi ci ak mboolem fédération ak mboolem taalib yi noonu ñu ngi ñëw fii nga xam ne fii la ko alayhi salaam fekkoon ko joxe werdu kon ni ñuy def mooy teewlu ci Cheikh Abdoulaye Dieye mu dikk ci ak i leeral nu ma teewlu ko jàngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaara di jiital ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mamadul Bachir yàlla na ko suñu borom yàggal lool te may ko wér defal ko mboolem jabootu Cheikhul Xadim gi di nuyu nag euh, mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu fekk ci chantier bu mag bii muy barab bi nga xam ne bi Serigne Touba fii ci Sarsara moom la defoon jàkka di fi jullee ay waxtu juróom Euh, di bàyyikoo ci kër gi di ñëw fii te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn hadis ne euh, képp koo xam ne jóge na ci barab jëm ci barab te yàlla yëkkati ko mboolem tànk yi nga xam ne dox na ko yëpp suñu borom da koy bind ay jéego ay jéego yu tuyaaba loolu moo taxoon sëriñ bi euh, kër daawu ci jullee waaye fu mu masaan dëkk day wut jàkka wacc al buyuti kullaha masajid du ñu ñëwee ci barab bu tedd bii tam ginnaaw téeméeri at yu tegal li ñu fi njëkk a naal ci ab liggéey muy ab chantier mooy jumaa ji jumaa ji itam soxna maam Issa mi nga xam ne moom la àndal ak délégation bàyyi ko Touba ak suñu bokk yi nekk Nouakchott kenn ku nekk di yëkkati aw ñaxam di ko jaarale ci loxob sa jëwriñ ñu di ko indi ci liggéey bi daaw indi nañ fi 32 tonnes ciment euh, waaye lii ab soññe la ndax fi ñu bàyyi woon jàkka ji daaw bu ñu ñëwaatee ren fekk mu avancé loolu day tax nit ñi gën a sawar waaye nag leeral bi ñu ci defaat rek mooy euh, bu ñu tam bàyyi suñu laxasaay ndax day béréb boo xam ne boo fi tabaxee jàkk ba mu àgg day mel ni ñaari jàkk nga tabax ndax li fi indi ciment bi di fi indi fer di fi indi ndox di fi indi ouvrier yi di fi indi li ñuy lekk ak li ñuy naan loolu soo ko xayma day tolloo li ñu def ci jumaa ji kon bu doon biir Nouakchott mën naa am tey jumaa ji eh, ñaaram dana ci nekk waaye bu dee fii nag eh, day mel ni benn mocce bi rek mooy ñëw beneen bi day dem ci fere yi kon loolu moo tax liggéey bi demee nii waaye ñu ngi soññaat bokki talib yëpp ñu xam ne àggagut te feeg àggut nag ñun rek ñoo ko war a àggale kon nag képp koo xam ne soxna si nee na mas nga cee def sa dërëm yàlla na la ko suñu borom fulal te yokkal la ko ba su ëllëgee nga mën a def lu ko ëppaat ci barki Serigne Touba ren ji bi ni ñëw tam am na lu ñu fàggu loo xam ne bu Serigne bi egsee ak commission bi yor liggéey bi danañ ko teg ci seen loxo waaye bu ñu ko tegee ci seen loxo ba pare tam soxna si nee na ngi soññaat bokkam boppam di soñu bokki kenn ku nekk foo nekk nga xam ne yaa ko fa lépp loo xamante ni bii dafa jëm ci waajtaay sarsaara ñu boole ci liggéey bi nga xam mooy liggéey jumaa ji ndax béréb bii sëriñ bi nekkoon kat mënuñ ko fee defal lu ko gënal defal ko fi néegub yàlla ndax daa waxoon ne waj al buyuti kullaha masajid sama kër gu nekk rek atteb jàkka la am kon nag nañ fexe ba góorgóorlu ci liggéey boobu mu àgg ak jàmm ba Cheikh Mouhamadoul Mountakha ni mu sémbee ñu war a inauguré jumaay Masaalikul naan ñu dem ba laaj ko ndigal mu yabal fii nit wala mu ñëwal boppam ñu inauguré jumaa ji ndax loolu ndamam Sëriñ Tuubaa la fii ci barab bu tedd bi loolu rek mooy kàddu yi ñu ñi nga xam ne yéen a jiite liggéey bi ñu ngi leen di siyaar di leen ndokkeel di ñaan yàlla may leen ci ndam soxna saa ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf waaw dem ci barab bi mu gisee woon ak yonent bi sallallahu ci bisu ajjuma nekkoon ci weeru koor di bisu laylatul foofu la ñu war a jëm bu jógee fii ci jàkk incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, mbokki jullit yi ngi leen di nuyu nuyu bu gën a tedd di leen ñaan yàlla suñu borom defal ñuy xéewal ba niñ bëgg ci jumaa yi Sëriñ Tuubaa ji suñ borom defal ñu ko te xel dal na ci sax alhamdulilah ndax ñu ngi ko ànd ak jullit ñëpp xanaa di ñaan yàlla rek suñ borom defal ñu dégg topp di yàlla tamit suñ jiitu yàlla teg suñ kanam suñ borom dëgëral leen ak Cheikh Sidi El Makhtar Mbacke ak Soxna Maam Aïcha Mbacke mu jóge tuubaa sama xol dafa fees moo tax li ñu naan wax tey mënuma ko mais sant naa gërëm naa maa ngi ñaan yàlla ci barke Seexul Xadim mu faj soxla yi te dëgëral tànk yi te jox ñu xew ñu ci def allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi di santaat Serigne Touba Mbacke mi suñu yaakaari tey ak bu baax suñu njëbal ci Cheikh Massamba mi suñu bunt ci sëñ bi di bu baax teewaay bii nga xam moom lañ teew fi tey muy teewaayu jaamu yàlla di teewaayu dundal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne at mu jot ñu def ko muy béréb bii nga xam ne moom la Serigne Touba doon jullee ci suuf su sedd si di suufu eh, ardu saalihin suufu gaa yu baax yi <coughs> di ñaan képp ku fi teew rek yal na yàlla faj say aajo ndax jullit yëpp lañ ko àndal umma islamique yëpp rawatina taalibe Serigne Touba yi ñuy jël seen ñàq di jóge Sénégal di traversé di ñëw ko fi def ngir di sàkku ngërëmul Serigne tuba ñoo ngi ñaan yal na nu ko Serigne Touba nangul yàlla buñ ci gis suñu bopp di leen xamal ni nag ñun duñ dara jaam jaamaat Serigne Touba donc lañ bëgg ñoo doon dara bëgg ñoo doon dara na ko sëñ Massamba doon jaamu Serigne Touba ba naar ba fekk ko fa nekk ndax kii sa jaam la tànk yooyu rek lañ jaaraat ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp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 di sant suñu yaakaar yi ëllëg muy cheikhul xadim di ñaanal bu baax mu Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo ko fi nekkal tey jàmbaari lislaam joo xam ne ñëpp xam nañ ak jàmbaaram di talibi Serigne Touba boo xam ne ñëpp xam nañ ak taalibeem ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba suñ borom yàggal ko fi lool te mu mu yàgg jiite yoonu murit te am ci ay ndam yu yaatoo yaatu. te ndam yooyu yàlla nañ ko bokk ak moom di ñaanal itam jëwriñam di sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine moom itam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di nuyu nag bokki taalibe yi ñu fekk yëpp ak yi ñu fi fekk ndax barab bi moom ab taalibe rek la xam te ku fi ñëw rek ak taalibe la yëkkati ak xañ su telu xañ suus lu baax kon nag ki turu soxna maam Issa Mbacke mi nga xam ne moom lañu ñu muy suñu kilifa ak Serigne Siri Mbacke Mourtada mi nga xam ne moo jiitu ci liggéey bi ne ci kanam ak mbooleem koo xam ne da nga bàyyi ko ci barab ñëw fi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara te di leen dokkeel bu baax a baax a baax te daje bi ñu daje fii yàlla bu mu doon suñ mu mujjug daje ci barke Serigne Touba te li ñu tax a jóg tam ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba kenn ku ne teg ci sa loxo mu mel ni nag bu ñuy wax sarsaara dëgg dëgg dëgg fii moo tax ñuy wax sarsaara ndax barab bañu dal fa xayma ya foofu moo nekkoon kër sëriñ bi barab beenu jóge mooy jàkka ja waaye barab bii nag fi la sëriñ bi noon nekk ci weeru koor yu mu njëkk nekk gànnaar daan fi daje ak mag ñi ñu daan bàyyi ko Sénégal di ko fekk si sëriñ bi wax ne lu jiitu mag ñi di bàyyeekoo sarsaare di ko fekk si bokki naaram yi nga xam ne daa bokk ak ñoom lislaam te ñu am ay ndono ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom day ñoo njëkk am pas-pasu bàyyikoo ci seen dëkk yu mag ya bàyyi seeni soxna ak seen doom ak seen i njaboot laxas ñëw fekk fii Sëñ Tuubaa te bi ñëw dañoo doxoon muy waa bani daymaan te Abdullahi nekkoon seen kilifa loole moo waral Sëriñ Tuubaa bind xaside gi ñuy wax am lii wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duuna suxtin inda sarsaara lahu sanaahi wa ridwaani bila shaqatin mushxaada li min bani daymaana anshaara kon bani daymaan googa moo taxoon muy wax wax ja waaye ñëpp ci tàbbi lillahi kulli la daa abaari makrumatan min hartaal naa wa fiha jama man saara kon li laxas nag ci olof mooy comme ñun niñ def rek noonu la naar yi def ñëw siyaare ko mu ne ñooñee laxas nag bàyyi seen i kër seen doom ñëw siyaare ko ñooñu la wax ni inna allazina ila sar saara xat xasadu ziyaarati faaraxu daare ni aw saara loolu daal moonu indi ci barab bi ñuy xeñ suti jeexit yooyu Serigne Touba nag 1908 la jóge gànnaar 1908 ak 1918 téeméeri at ak fukk la bi fi Serigne Touba jógee ak léegi téeméeri at ak fukk la téeméeri at ak fukk nag booy xool fi jamono toll waaw nañ ma dimbali ngir jëmi suñu waa wax yu baa wax yu sew yi wala ma noppi man ndax munu non dafa métti loolu daa nañ dañ dégloo sëñ Tuubaa munuñ ciy wax kenn di ruumandaat na ñëpp déglu waaw non bu bu ñëpp noppee rek li ma wax ñëpp dégg ko na ñëpp noppee dama ne téeméeri at ak ak fukk ba fi sëñ ba jógee ak léegi 1908 la jógee gànnaar dem ci yéen téeméeri at ak fukk yooyu nag ci ginnaaw bu ñu xoolee ni jamono doxe dañuy xam ne ci wet yëpp jamono daa soppeeku ci gën a neex kon téeméeri at fukk jamono daa naqari woon lool li am léegi lépp amutoon muy ci wàllu li ñuy jëfandikoo di ko lekk ak li ñuy naan ak li ñuy sol ak li ñuy ñëwee dara bokku ci woon ak mag ñi niñ fi doon ñëwee mag ñi biñ fi daan ñëw kenn ku ne benn yëre rek nga doon yor. su ñëpp dégloo rek li may wax ñëpp dégg ko rajo bi jaru ko ndax day yàq image yi na ñëpp déglu rek waa dama ne sëñ Touba bi mu ñëw booba ñam amul ñam ñam amul wu ñuy lekk yére amul yu ñuy sol mag ñi ku ci mas a sol benn yére da koy awante sooy fóot yére ba guddi nga koy fóot ku ci mas a xiif dangay xiif ba àgg ñëw ci sëriñ bi di ko diis bi sëriñ bi ne jël leen laxasaay yi takk ko ci ndigg yi ñu jël seeni laxasaay yeew ko ba seeni biir dëgër ngir ñu mën a taxaw waaye bu sëñ Tuubaa ne tëll génn ba tàmbalee waxtaan ak ñoom dañuy regg ba mel ne dañoo añ bay soog a noppi su dee waxtu reer day mel ne dañoo reer ba noppi bu dee waxtu ndékki dañuy mel ño ndékki ba noppi loolu nag yonent bi da ko daan def yonent bi da daan waar saxaba yi ba duñ bëgg a dem marché jaay yi yonent bi arrêté waaraate wi ba seen température wàcc mu ne dellu leen ca marché ndax loolu daa bokk ci sunna ak lislaam ñu dellu fii lu ne nit daj na ko fa du jar nag ñuy tudd mag ña ndax da ci am loo xam dafa yéeme waaye am na mag moo xam ne bi mu yegsee gànnaar tànk yi dafa newi ba mënut a sumi tubéyam ndax ndax météo dox bi kooka ñaar fukki fan ak juróom-benn la dox xam naa turam xaw am santam waaye du ko wax ñaar fukki fan ak juróom la dox egsi mun da sumi tubay ji ngir tànk yi daa newe sëñ Basiiru la fekk fii sëñ Tubaa fatu sëñ Basiiru am fukki at ak juróom mu ne ko ndongali may ma ndox sëñ Basiiru daw may ko ndox ñu nekko ko doomi sëñ Tubaa nga yónni mu ne xaw ma ko woon ndax damaa mar daal di woo sëñ Basiiru ne ko maa ngi tuub ci yónni gi ma yónni doomi borom Tubaa sëñ Basiiru ne ko jéggal naa la mu ne ko damaa bëgg ñu fasante kóllëre sëriñ Basiiru ne ko sañu maa fasante kenn kóllëre di sëñ ko da ngay bàyyi ba sëñ Tubaa génn su ma ko tàggoo ba mu nangu ma fasante yow kóllëre bi sëriñ bi génnee sëñ Basiir wax ko ko sëñ Tuubaa ne ko Basiiru fasanteel ak moom ko kóllëre ba yow mal xiyam ñooñee ba léegi taalibey sëriñ Muntaxa lañ armeel yi puufa yi am na kuñ fa denc ku ñuy wax sëñ Makasaar bi mu niyoo sëñ Tuubaa da koo niyu rek wàcc ab liggéey sëñ Tuubaa wax sëñ mu amal ñu na ak mag ñe ne leen Makasaar yóbbu leen ko ci armeel yi fa denc ko yéen yi koy gunge nag du ngeen tàbbi sawara am na tam ku ñuy wax sëñ Ibra Joor Amar sëñ Ibra Joor Amar fii la ko sëñ Tuubaa yónnee ne ko damaa bëgg nga dem Ndar wala Dagana nga wutal ma fa téere bu ñuy wax almuwaahibu la duniya te mag ñi bu leen sëñ Tuubaa masaan yónnee lu jafe feek amuñ ko duñ dëpp Cheikh Ibra Joor dem yàgg fa lool di wër marché Ndar ya di ko wër di ko wër ba jeexal marché yi waaye amul téere bi Cheikh Ibra Joor wëlbatiku ñëw Dagana di ko wër amu ko mu wëlbatiku ba ci genn gàddu naar gu ñuy wax euh, euh, Ibrahima ibnu bu euh, maa ngi fàttali tur wi mu laaj ko ne ko damaa bëggoon fu ma dalloo Ahmadu ibnu Budd la tudd Ahmadu ibnu Budd mu ne ko damaa bëgg fu ma dalloo Ahmadu ibnu Budd ne ko man nga fee yendu defal ko ay tiranga defal ko ataaya defal ko ay njari naar mu lu ba pare nag waaye nee na sama tànk yi nagam na ngir dellu ci Sëñ Tuubaa Sarsara ne ko aw ma téere bi dara jaru ko waaye itam waxuma tam naar bii ne ko téere bi lay wut nee na mu ne ma foo jëm ma ne ko Sarsara mu ne ma fa la sëriñ bi nekk ma ne ko waaw mu ne ma seriñ bi de am naa yéene jox ko addiya xaaral ma dugg ci biir sama bagaas daal di dugg ci biir bagaasam am daal di jël almuwaay bu la duniya ñëw jox ko si Ibra Jor Amar léegi nag sëñ sëñ Ibra Jor Amar moomu sëñ Ibra Yor Amar moomu naar booba ne ko man day Cheikh Ahmad Tidiane mooy sama sëriñ man Ahmadou Nda Buddu waaye dama lay yóbbante ci sëriñ Touba ñaari yóbbante yoo xam ne ñaari yóbbante yooyu bu fekkee ne sëriñ bi liñ koy waxal ci ak wilaaya ak jege yonent bi am na dana ma ci wax dara ne ko benn yonent bi nee ko damaa am yéene gis Cheikh Ahmad Tidiane lool te musuma koo gis su ma ko gisoon ci gént sa sant ci yàlla yéene naa tam gis rasulullahi musuma koo gis léegi nag damaa bëgg boo demee nga waxal ma Serigne Touba ne ko na ma niyul Cheikh Ahmed Tidiane ni xam naa ne mi ngi koy gis te nee ko na ma niyul rasulullahi mi ngi koy gis bi sëñ Ibra Joor Amar ñëwee bokk ko sëñ Touba dafa bind ak xasida goo xam na mi ngi tàmbalee ci rabbu salaamin nga xam ne dana niyoo bii nga xam ne moom la doon niyoolu te jaarale ko ci moom niyoo bi ñi mu ko doon nuyu jot nañ ci te li xam na li tax mu xam ne jot nañ ci Ahmadu ibnu Budd moom ma jox téere bi ma doon laaj jaarale ko ci sëñ Ibra Joor Amar moom su ëllëgee buy faatu Jibril day ñëw ak Rasulullaay ak malake yi ñu escorté dem ba ci àjjanaam biñ ko ko waxee nag ne mu ne tam mu ne tam maa ngi leen di dénk ne leen sëñ Tuubaa bis bi may wàcc liggéey su munta ñëw na yoon yónnee bëgg naa loolu amoon na nag doomam bu tudd Ahmed guddi gi nga xam ne nag moom la Ahmadu ibnu Budd wàcc liggéey dañoo julli timis ba pare sëñ Tuubaa woo Cheikh Ibra Dior Amar ak ñenn ci mag ñi ne leen tey jii la Ahmadu ibnu Budd wàcc liggéey damaa bëgg ngeen dem. Ahmadu ibnu Budd nag bi mu wàccee liggéey ci guddi gi doomam ji tudd Ahmed dafa génn ci wanag wi doggali ko ba pare daal di cappandaayoo nee na bi mu nag li ko jaaxaloon mooy nu muy def ba sëñ Tuubaa jot xibaar bi nee na fi mu jël ay loxoom teg ci boppam. nee na dafa dégg rek bur wi ñuy ñëw rek mu ne ana ñooñu rek ñu ne ko ñun la dawi sëñ Tuuba wax nañ ne keroog njañ yi da ko doon suqi da doon suqi njañ yi di ko buddi loolu bokk na ci kéemaan yi fi am bokk na ci kéemaan gi gën a yéeme nag mooy gis gi sëñ Tuuba gi si yonent bi ni ko yàlla bindee ndax borom xam-xam yi da cee am ku ñuy wax su Uwaysu Uwaysul Xarani Uwaysul Xarani bi yonent bi wootee yaayam daa tawatoon ñu ne ko doo wuy yonent bi mu ne déedéet du wuy yonent bi ñu ne ko lu tax mu ne damay toppatoo sama yaay ba sama yaay faatu bu sama yaay faatoo nag te yonent bi nekk fi ma ziyaare ji yonent bi bu sama yaay faatuwut te yonent bi jiitu ko baddali gi ma doon baddali sama yaay nekk dem ci yonent bi ci man pas-pas boobu nag ci la ko yàlla ne ko yow sa pas-pas bu yaatu bii ci laa lay jegeele rasulullahi ba nga jege ko ba mel ni ña toogoon ca penkam lañ am da nga am lu ko ëpp léegi nag moom gisut yonent bi waaye gis na Aboubacar Siddiq ak na Omar benn bis mu dajeeg ñoom te ñoom Abou Aboubacar Siddiq Omar Ousmane Ali ñooy xulafa arba ñoo gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñu ne ko yow yaay uweesu uweesul xarani mu ne waaw ñu ne ko waaw yow lu tax bi yonent bi wootee ñëwoo mu ne leen sama yaay laa doon toppatoo waaye yéen ñii toogoon ci penku yonent bi maa leen gën a jege yonent bi ñu ne ko noo ñu ko mën a leerale ci ak ragal yàlla mu ne yàlla suñ borom day dindi na maqaama yi dox sama digganteeg yonent bi di ko dindi di ko dindi di ko dindi ba mu des juróom-ñaar fukki junniy kiiraay mu ne ma uway su taxawal benn kiiraay su ma ko wireetee su ma ko dindeetee da ngay seey ci leeru yonent bi te yéen te yéen fa ma àgg su ngeen fa àggoon Aboubacar Siddiq Omar ak Ousmane Ali ngeen seey kon maa leen gën a jege yonent bi ñu ne ko li dëgg la kon ki gën a jege bi na dama koy jege ba ci juróom-ñaar fukki junniy kiiraay sama borom ne ma boo doxatee benn jéego jëm ci moom seey sëñ Tuubaa nag moom dane dallani allahu alallahi bila taqarurin wa umuri taqabala waxaan ne yàlla ommat na ma ba ma ñëw ba toog ak yonent bi waxaade nii muhammadin li sama de yonent bi jàpp sama loxo ne ma kaa ñu dellu ci yàlla mu waxaan ne ah, ah jooju nga xam ne moo gën a jege yonent bi muy waysul xare nii sëriñ bi moom dane arayta nii arayta nii sama borom wan na ma sirru rasulullahi te sirru rasulullahi bokkut ak rasulullahi sirru rasulullahi mooy mooy mooy leer gi bi mu nekkee ak leer nga xam ne suñu borom dafa googu jëmm nee na gi sama borom wan na ma ko leeru rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na yonent bi suñ borom naan loo na ko ci géej goo xam ne yonent bi dafa naan ba siggi ne ma ahmadu naanal sëñ Tuubaa nee na bi ma bi ma bi ma dëtëmee géej gi ba naan ba noppi dafa mel ni ab nawet mu taw ndox mi bari ba noor bi ñëw fetti fetti yi nekk ji nee na noonu laa ko def léegi nag am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne Rasulullah kenn dootu ko gis Jibril kenn dootu ko gis Sëñ Tuubaa weddi ko Sëñ Tuubaa nee na maa ngi njëkk a gisee Jibril ci kaw suuf Mbàkke Kajoor nee na bi sama baay faatoo Sëñ Tuubaa nee na bi sama baay faatoo yonent bi sallallahu alayhi boobu laa ko njëkk a gis mu tuñanteeg man ne ma teggin yi nga doon may sa baay jeex na dem na tey nag rabbi ashabaka bil imma wala turabbihim bi darsi faxat ku ñëwoon te itte yëkkati la yóbbu ko ci yàlla ku ñëwoon te jàng képp yëkkati ko na dem jàngi nee na kere laa njëkk gis rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaareel yoon bi ma ko gisaat mooy bi ma ñëwee Touba ba am fi juróom-ñaari at ba nekk ci jàkkay sëñ Mbacke Madina ji ci Daaru Xudus nee na nee na jàkka joojee fa laa gisee yonent bi am ñeen fukki at yu manqué ñetti weer nee na yonent bi ne ma Ahmadou ma ne ko waaw mu ne ma dama laa dikkal tey nee na mu ne ko loo ma dikkale mu ne ko da ngay sama soppe di sama xarit te nit yàlla yi ku mas a toll fii nga toll am lu mu loo bëgg nee na ma ne ko ñii nga àndal ñu nekk ci sa ginnaaw muy waa ahlu badar bokk ci ñoom laa bëgg yonent bi ne ko loolu mënut a nekk mu ne ko lu tax mënut nekk mu ne ko ñooñu xare jaay seen bakkan lañ def te loolu jeex na ca jës bu ne tanaasuhul mawtu maha wal kullu min um sujaha bi leen yonent bi yee guddi ne leen kaay xare ji dañ na ñun ñëpp joxe nañ suñu bakkan ñu ne ko nag joxe bakkan jeex na kon nag ginnaaw ñii dañoo joxe woon bakkan te yow laajuñ la bakkan munoo am liñ am yonent bi ne kon ndax yàlla mënut a changé loolu mënu ko échanger te xoolal léeg-léeg nga jënd benn garab ci pharmacie ñu ne la garab bii am na beneen bu koy remplacer ñu ne ko li saa bay defoon li koy remplacer mooy ànd ak say noon juróom-ñaari at te doo leen laaj loo lekk doo leen laaj foo jëm doo dox di geesu kenn du la xëbal ba nga tiit doo mooy yàlla te luñ la def lu miti miti nga muñ ko xam nga lu ko sëriñ bi da ne ko sama yaram ak sama bakkan dama ko sàkkut bay xam lu mu attan lu mu attanut waaye lu sama bakkan attan sama ngor ak sama jom dékku ko yonent bi nag ne ko xam nga luy sama sas ci loolu mu ne ko déedéet mu ne ko nattu buy ñëw rek su nattu bi waa ñëw naa la wax nattu bi suba lay ñëw moo tax sëñ Abdou Lahad fukki fan ak juróom-ñaari ci safar bu ñëwee sëriñ bi day mel ni ndongal ndongal yarlu yarluwaan ngir xaar yi danaan tekki rek di xaar nattu yi nattu yi di di jooru ci kawam rek suuratul ahwaali mooy suuratul baqara la am ci nattu mooy ñaari téeméeri nattu ak juróom-ñetti fukki nattu ak juróom te buñ ci teg benn yonent mu faatu sëñ Tuubaa dékku ko nee na fi si amati yan àggoon abul asan àgg fa abdul xaadir ji leen àgg fa ba nga xam ne ñoom bañ fa àggee dañ ne yàlla doyal nañ li ngay séddale doyal nañ ci sëñ Tuubaa nee na man fa àggee ab téeñ laa ko def ab téeñ pour waaje yenu nee na moom ab téeñ la ko def ngir yanu mu mu te booba l'islam daa tumuranke moo tax mu ne ca ca jawartu nasa ali l'islaama inda xurbati la dal sha'iri mu niiru turbati l'islam demoon na sànku ji maa ko dabi indiwaat ko gabon nag nee na gabon nee na ba muy gis nag rasulaay ca gabon dafa dafa ànd ak jibril loola nag la naari gànnaar yi di laaj nag mu jaaxal leen dane dafa am benn bis ñu tëj sëñ Tuubaa ci ab kaso boo xam ne ñaari téeméeri militaire fa nekk sëñ bi dem ba ca wet ga muy jullee ka jàng alxuraan ñoom ñuy mooy ak naan sàngara waaye sëriñ bi nee na mooy yàlla lum la jege jege te defoo ko doo ca bokk nee na nag sëñ bi nee na ñu nekk ba fajar rek ma jóg man di julli ji nee na ñoom ñu jóg di maaj nee na seen commandant mi ne leen ay wo ñu dem maaj ñu dem maaji léegi nag sëñ Tuubaa ne lim fanaanoo ci kaso bi ñuy mooy na naqare na ci xolam te bu dara naqaree ci xolam yàlla fajal ko ko nee na te yonente bi amul droit guerre xeex amu ko droit léegi yàlla ne yonente bi damaa bëgg nga ànd ak waa ahlu badar ngeen dem tiital ñaari téeméeri militaires yooyu nga xam ne ñoo fanaanoon ak sëriñ ci benn kaso di mooy yàlla nee na biñ ñëwee nag na na na nañ demee woon badar noonu lañ ñëwee dañoo wàcce kaala ya yor méteel ya yëg ci kaw fas ya na bi ñenn ci militaire yi ne ko waaw ñun liñ gis ndax gis nga ko ñu koy waxante di ko waxante ba ñëpp xam ne daal gis nañ daal lu leen jaaxal nee na ñu daal di jugaat nee na ñu daal di jugaat daal di arrière ndànk arrière ndànk arrière ndànk ba delluwaat ca camp ya daal di toog nag tayal lool nee na bañ toogee tayal lool nee na bañ toogee tayal lool nee na ñu ne leen waaw yéen lu xew tey kenn ku ne di ko waxante waaye am nañ gàcce wax li xew capitaine bi ne leen commandant bi ne leen man li ma gis damaa xamul gis ngeen comme de ñu ne ko gis nañ ko de sàllaaw ndeke day jëmu ji kenn la ci niñ koy gisee waaye ndekki kii bu soxla woon ñu ko xeexal am ñu ko xeexal ndax liñ gis tey ci fajar yéem nañu sëriñ bi loolu foofu nag loolu foofu laa ji am ndax am na yeneen ñu ci topp waaye euh, sëriñ bi bi mu ñëwee ba gànnaar daa am benn naar bu ne ko man de li nga wax ne gis nga rasulaay jaaxaluma waaye sayidul amin laa xamul koo ci koo ci jublu mu ne ko Seydou Amine Jibril laa ci jublu mu ne ko Jibril kat nee nañ dootu wàcc sëñ Tuubaa ne ko ñu ko wax xamuñ lu ñu wax daan ne ko Jibril ndaw la ñuy yónni la te saa ko yàlla yónnee mu wàcc daan ne ko moog yónent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo jiite woon ña ma fekkoon gabam waaye yooyu yëpp yónent bi bii daa ñëw di ko ñaax bii mu ñëw di tiital ay noonam waaye fii ci Sarsara nag daa ñëw ne ko sa borom nee na ku liggéey fayu sa sa paye ngii fii lañ ko fayee fii fii ñu toog bis lañ ko fay ban bis lañ fay sëñ Touba weer yëpp weeru koor a ci gën guddi yëpp guddi ajuma ci gën waaye nag bu at mi guddi yi ci nekk boo ci jël génn guddi laylatul xadar ci gën weeru koor guddi ajuma di laylatul xadar ca ñaar fukki fan ya la rasulullahi ñëw fii bila bila naw bila naw nag ci lu nelaw du gént du jeneer du jeneer nee na na yàlla binde yonent bi noonu la yonent bi ñëwee ci man nee na indil ma al wirdul maxuus min allahi bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa daan ne ma Ahmadou Bamba sa borom nee na ba nga nekkee Gabon di liggéey da la dig rek ne la danaa la fay dig tey tey ku doon liggéey ci ñun su amee weer fayuñ ko mu ñaxtu waaye moom daal liggéey fanweeri at ak ñaar suñ borom nekko ko dinaa la fay de waaye suuf sama lay fayee suf suñ tànn doon suuf sama lay fayee suuf su man di jaamu yàlla lay doon moo def sëriñ bi barab bi al ardu saalihin la ko tuddee woon suufi nit ñu baax ñi boo ko fekkee xamoo da nga ko man kon nag ku ko man at mu jot ñëwal Sarsara say bàkkaar wàcc ndax xaalis jëriñu dara xam nga xam nga xam nga lu sëñ Tuubaa waxoon borom daarul mu oti ci am mbaar la ko fekk ci njaareem maam Thierno Irbadi borom daaru toog ci biti ngir war mal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñëwal ci mbaar mi borom daaru ne ko rus na maa toog ak yow ci mbaar mi sëñ Tuubaa ne ko rus na maa toog bàyyi la ci biti ne ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko jàll sil mbaa jàppoo ne maa ne la sil yàlla moo ne ma fàttalikul ba ngay ànd ak Cerno te dara amul woo ko ci biir mbaar mi borom daaru ñëw ci biir mbaar mi borom daaru ñëw ci biir mi kere nag la sëñ Tuubaa di attaaya jox borom daaru attaaya xëy na sëñ Awa Balla sëñ Moudou Awa Balla da doon nelaw sëñ Moudou Awa Balla da doon nelaw ngir dox ba sëñ Tuba ne ko Cerno kii kum doon mu ne ko mu Awa Balla sëñ Tuba ne ko fëgg ko mu jóg borom daaru fëgg ko mu jóg sëñ Tuba ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko ak maa gëj gis kuy nelaw daa ko Cerno mu ne ko mu ne ko mbaar mi daa am ay yendeer mooy daa am jeexiti naaju yi dugg ci mbir mbaar mi léegi nag jëlal ci xaalis bi nga fattal ma bunti mbaar mi ay kayit borom daaru jël këyit yi commencé fatt mbaar mi am ñu ne waaw sëñ Tuba naa daa xamul xaalis ñu jaay da jox ko ñëpp ko jox yàlla nga tudd barke borom Daaru ko ñëpp jaay ko jaayoon na baax na baax mu ne ko mu ne ko Thierno xaalis fatt buntu rek lay jëriñ Thierno mu ne ko Mbacke mu ne ko lay kon nag damay bañ a déggati ku naan ñaari mbir ngi yoo xam ne bëgguma koo dégg neexuma mooy nga nekk Touba dëkk bi daa dëgër wala ñu woote dara ci sëñ Touba nga naan addina jamono neexut sëñ Abdoulaye nee na sëñ Abdoulaye nee na nawet bu nangu xol yu nangoo ko gën dangay ngay ba sab xol nangul sëñ Touba sëñ Fallou mee da ne man le bi ñuy ñëw daa am ku mu wax Sarr ne ko paas bi 40 000 la. mu ne ko amaguma pësteefu dem màggal gu ñuy passé quarante mille waaye waaye murit bi murit bi murit bi lu mu am ba denc ko ba jàpp ne moo ko moom su jàppee ne moo ko moom xanaa la mu waxoon da ko fàtte bi ngay jébbalu da ngaa ñëw ni sëñ Tuubaa jox naa la sama bopp addina jox naa la sama bopp àllaaxira kon moom ma doo sa boppu dara kon nag xaalis buñ ko jiital nañ jiital wut ngërëmal yàlla mag ñi doon ñëw fii ngërëmal yàlla lañ doon wut ngërëmal yàlla loolee am nañ ko ñun ñi fii ñëw suñ wutee ngërëmal yàlla danañ am ngërëmal yàlla soxna si ñu àndal nag soo gisee mu man lii mu man du moom de sëñ Tuubaa ndax gis nga sëñ Tuubaa soo amee fulla ba bàyyi lépp jàpp ko mu am fulla nag ba yoral la sa lépp te sëñ Tuubaa nee na man du ma farlaa xoo bugguma Moustapha bugguma Basirou bugguma Mouhamadou Fadal bugguma Mouhamadou Lamine yàlla laa bëgg ak rasulullah widaadi widaadi li rabbi wal muqafa wa isbihi wa man abuhum wallahu li kaana bil afwi man ñëpp samay doom lañ adhéré Serigne Touba. soxna man duma waxal kenn lu ma gëmut dama ne sang du ma waxal nit lu ma gëmut barki Serigne Touba su jaarutoon ci yoon mbooloo mi dañ ko topp su ci yoon. mbooloo mi dañ ko topp man 2007 laa ko xam le 5 septembre ca Ndar sama directeur Mortala Fall boole ma ak moom may ku compliqué ma ànd ak moom di ko seetlu di natt ay pas-pasam ba xam ne murid saadix la sëñ Tuubaa képp la gëm te ma xamee ne sëñ Tuubaa la gëm su ma nettalee lii may wax sëñ Saliou Mbacke ko wax sëñ Saliou daa am ku ñëw ne ko nu ñuy natte nu ñuy natte lu sëñ Tuubaa nangu dañoo bëgg xam nu ñuy natte lu suñ tubaa nangu sëñ Saliou ne su ngeen di nattati lu suñ tubaa nangu na ngeen xool xoli murid yi nañ ca mel su murid yi nangoo ni diw li muy def dëgg la sëñ tubaa nangu na ko te ku toog fii soo dee nitu dëgg da nga nangu ne kii li def sëñ tubaa nangu na ko kon nag kon nag kon nag te nag te nag ci njàmbaar sëriñ bi mane daa bo daa ci njàmbat daa bokk ci njàmbaar am aw tiis ak ku métit téye ko ci sa bañ koo wax nit ñi Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mamadou Bachir bi ñuy julli korité dane na nit ñi bàyyi njàmbat yi suñ bàyyee njàmbat nañ ci teg nañ ci teg beneen muy jël sëñ Tuubaa teg ko fi ñu ko war a teg daan ne suñ bàyyee njàmbat dootu ñàkk dara sëñ Tuubaa fàggu na lépp suñ jëlee sëñ Tuubaa teg ko fañ ko dootuñ soxla dara te amuñ ko daa di wax ne su fekkoon am na ñu war a ñee màkka képp lañ war a ñee ak madina te ñeewuñ màkka ak madina sëñ Muntaxa ko wax kon nag loolu nañ ci bàyyi xel nañ fexe ba doon ay murit xam ne li ñuy wut ci sëñ Tuubaa ne lu dee wut lépp a ngi tey jii nu def ko fi yow lu dee fi wut nekkatul màkkaa ki faasa ki xaay fu as njëriñ masa nekk ak barki jóg na fa tey ay xottade sëpp yow Ahmadou Bamba képp yaa di nga ñaay na ngeen ne ma du ngeen ko gis mukk mu ñëw Sarsara am lu mu yónnee ca marché bi mu ñëw ci moom bu dul bu dul suukar bu dul suukar te suukar si kafe eh, koom fukki at ak ci gannaaw gis nga ni bindee mbooloo bi fii na la dinañ liggéey la ñu nekkandoo fa weer Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad yaa des góor yaa gis nga xoolal ku iñaan du sant ku iñaan du seede du soxor du seede li nga seede fukki at ak juróom benn ci gannaaw laa wax def na weer xel koom ñoo fa nekkandoo xoolal muy togg di jox nit ñi di xëy dem ca tool ya da ngay fayeeku si kenn mënu ci dara da sa maam suñu doo fayeeku si soxna si yow noo tudd man Adja Koom Ñang Adja Kom Niang yaa ngi doog a ñëw Sarsara wala. yaa ngi doog a ñëw Sarsara. Mhm. jóge Dakar amoo 5. Mhm. doog a ñëw Sarsara. Mhm. ndax bokk nga ci ñi ñoo sa dem Màkka wala déet. waaw damaa demoon Màkka ma demee Màkka ak léegi war naa ñetti at. ñetti at waaw. Euh, comparaison diggante Màkka ak Sarsara ni nga gis ni Adja ji mel foofu ak way sayaari Sarsara yi. man de daraje Mouhamed mënu ma leen a xàmmee damaa kontaan. ndax mënu maa xàmmee ne nii Màkka. ak kaw saar ak Sarsara te it macha allah bi ñu xëyee ba armal màkk rek la ma jox te képp ku fi mës ñëw yàlla na la fi yàlla indi may ñaan nag waa sama waa amoo Dakar waa amoo cinq gëma dëkk mm-hmm. suñu borom indi leen suñu borom indi leen kaw saara indi leen sa sa sa saara. may fàttali mooy xam nga tey bu dañ daan xotti yoon ya di ñëw di fekk si fi Sëriñ Tuubaa di ñàkk seen alal di leen rey ci yoon waaye lépp nu mu leen mën a coûter rek ñoom jaraloon na leen ñu ñëw fi fekk fi Seexuna Seex Bamba kon lii doon na mbir moo xam ne kenn waru ko doyadal ndax Serigne Touba bi mu nekkee fii ci Mauritanie amoon na ak jokkoo ak seen maam yu baax yi di borom xam-xam yi ak kilifa yi Mauritaniens yi di jëflante ak moom ngeen gaa rafetu jëflante ndax daf leen a jàppe woon rek ay jullit ci yàlla ndax innamal mu'minuuna ixwati jullit naka way gëm yàlla yëpp ay mbokk lañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al muslim aqul muslim jullit jullit ay mbokkam waaye jëflante googu mu na doon ay siyaarante ak i weccante ci fii ba njaareem ci résidence suroant yi bañ ko téewoon daan nañ fa ñëw magi di ko tagg ay xasida yu yéeme waaye boobu ba léegi relation bi dox ci diggante ñaari réew yi dafa doon relation bu yitteel ñaari gouvernement yi ndax population bi dañoo bëggante moo tax ñu ngi koy garder bu baax a baax di ci sonn kon du doy rek bu ñu ñëwee fii ni comme ay murid lañ dañuy ñëw di siyaare wala di barkeelu comme ni ñu ko daan waxee ci suñu discours yëpp passé dañoo ñëw war a doon comme ay taalibe yu jóg di xeñtu jeexi di seenu sëriñ ñu xam dëkk dëkk ak xali sëriñ bi doon jànkonteel fii ak ji sëriñ bi doon jànkonteel fii ci Mauritanie dina delloo suñu soobu cofeel ci sëriñ bi ak dëggug aju ak ndollanul góorgóorlu ci suñuy soobu ànd ak sëriñ bi doon xeexal moom muy xeexal lislaam ndax mboolem kilifa yi liggéey ci àdduna bi euh, tey euh, ay surafa ay wàllu ñoom ñëpp ku ci nekk doon nga ñëw di wane sa cofeel ci sa diggante ku tedd waaw doon nga ko wane moo tax bi mu dikkee fii la ko sëñ yonent wa sallam fekk fay ko ndax dana tukki bee dama doon liggéey fii dama doon fayeeku si moo tax su li ma la ko waxee léegi yasuquuna turuxa suñ maam yi dañ daan xotti yoon ya ñëw ngir bëgg a fekk si Serigne Touba fii ngir bëgg a jariñu daan nañ faatu ci yoon bi seen alal waaye nu mu leen mën a coûter rek jaraloon na leen ko waaw. bërëb bi di ardu saalihin bokk na ci surafaa yi dëkk ci dëkk bi jamono ji nga xam ne ñoom am xam ne dañ bàyyi seen yitteem ñëw ba jàmbaar ju baax ju sell ji nga xam moo ñuy defa teranga moom nee na guddi ajuma gi jot dina ñëw fekk fi Sëriñ Tuubaa gis ko ci baatin mu fajal ko ay soxla te kooku waa kër Baay kon ñu xam ne Sëriñ Tuubaa mi ba léegi demul fenn a defaraat loolu bokk na waa ministre bi wax moom sàmm na tamit maanaam ñu doon bi mën nañ ko defaraat loolu du dara xaalis rek koy am na lépp waaye il ñu xam nag dëgg dëgg àqali Sëriñ doon jànkonte fii ndax métit yam doon def ña doon faatu ci yoon il faut jël ca barkeelu ca tuuti ndax ñun ay kat kat la ñuy war ba egsi waaye bu egsi ñëpp dañuy sonn kon ñoom ña doon def kon sonnoon nañ kon il faut ñu barkeelu ci waaye bu fekkoon defar rek ba tey egg ndax Sëriñ Tuubaa mooy borom lépp waaye il faut nag ñu barkeelu ci ñu ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ radiyallahu anhu waxoon na ne su ma leeroon ne murid dem nañ xel ko ma bàyyi woote xel ko waaye man mi su ma leeroon ne ñëpp ñëw nañ sar saara yoon danañ ko defar asna wujo fil Mauritanie Cheikh Ahmadou Bamba taxama maxale wula maaye ace laay Mauritanie bi ahsani muhamalati wata babaduli bi ixtibaaram ihwatu fillah يسلكون طرقا للمحاولة الوصول إلى سيفهم مهما كلفه ذلك من فوت نفسه والدياء مالك هذا شيء لا يستهان به